ginnaaw bi président groupe parlementaire libéral Madické Niang démissionné woon maître Abdoulaye Wade di njiitu parti démocratique sénégalais tànn na honorable député Serigne Cheikh Bara Dolly yi fekk baax Touba choix bu nu mel nag bi nu jokkoo woo ak moom nee na kat Abdoulaye Wade mi ngi ko defal waa Touba sagal également doomu soxna yi ci ay kàddoom jàpp na ni moom Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly li nu tàmmoon jàpp ak gëm ne groupe parlementaire ku amul ay diplôme doo ko jiite tey jii nag maître Abdoulaye Wade dakkal na ko ni nag lii ndam la pour waa Bawol rawatina waa Touba jàpp na ni nag lu ni mel amul kenn ku bokk ci parti démocratique sénégalais ku ko dàq ñépp ñoo ci booloo ànd ba tey Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké mi nu jokkoo ak moom gis ni mérite la ci moom ndaxte diirub bi mu nekkee ci parti bi coordinateur ci Touba mooy gagné élection ne 2014 ci local yi moo ëpp xob ci Touba référendum yi naka noonu ak législative yi mu ñëw nag firndeel ko ni loolee bokk nañ ci li tax maître Abdoulaye Wade taamu ko ngir mu jiite groupe parlementaire waaye nag jar na taxaw seetlu lu waral ñu taamu kii nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly mu nu jàppoon ni jóge woon na loolu ma Madické Niang bu daan dugg ci dëkk bi daan na dem këram Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacke moo ko daan sax gunge muy dem di ziyaari Serigne si ñu seqoon nag ay relation yu wér te wóor tey jii bu maître Abdoulaye Wade defee lu nu mel est-ce que nekkul ni dafa bëgg dëgërluwaayu parti démocratique sénégalais ngir xàjjale Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly ak maître Madické Niang